dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo xeex bi nga xam ne Sénégal doon na ko xeex ci lu jëm ci woppi coronavirus bu doon caayee jamono ji mën nañoo wax ne ñor ko dagg na yéenekaay gii di réew mi ko di jee mu xëy di ñu xamal naa ñu njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb def na discours wax na ak askanu Sénégal ci lu jëm ci woppi coronavirus ak jafe-jafe yi nga xam ne indil na ko réew mi ak matukaay yi nga xam ne wax na ne danañu ko jël ci mbir mi yéenekaay gi ba tey njiitu réew mi di président Macky Sall daan na fay wax ne état d'urgence bi daan nañu ko fii jëlee boole ak li nga xam ne mooy couvre-feu bi yéen a kaay gi di réew mi quotidien njiitu réew mi yemul foofu ndax nee na frontière aérienne yi maanaam jaww ji danañu ko ubbi fukki fan ak juróom ci weeru sulet bàyyi avion yi di naaw di dem ak dikk njiitu réew mi wax na ci lu jëm ci ñi nga xam ne dañuy stigmatiser ñi amee jàngoro ji maanaam di leen boddi loole nee na ñu ko teg ci suuf ndax baaxul ci réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall ne état bu Sénégal def na ay jéego yoo xamante ni mën nañu see teg loxo xeex bi nga xamante ni ñoo ngi koy xeex woppi coronavirus ci réewum Sénégal yéen a kaay gii témoin xëy di wax bàyyi bàyyi état d'urgence bàyyi bàyyi couvre-feu yéen a kaay gii di réew mi quotidien njiitu réew mi di président Macky Sall daa di wax ne jamono ji crise sanitaire rek amul ci réew mi crise économique dafa am ci réew mi ndax Covid 19 bi dafa saax saaxee li nga xam ne mooy sunu économie ndax taux de croissance bi tolloon na si six virgule huit pour cent jamono ji ma ngi ci un virgil un pour cent te loolee maanaam lenn war lu ko lu du coronavirus bi nga xam ne secteur yu baree bari yàq na ko njiitu réew mi nee na secteur bi di transport am na ay jafe tourisme bi am na ay jafe-jafe hôtellerie bi am na ay jafe-jafe restauration bi am na ay jafe-jafe culture bi am na ay jafe-jafe artisanat bi am na ay jafe-jafe mbirum commerce bi am na ay jafe-jafe Sud Quotidien ak Dakar Times mu ñu xamal lan ñu njiitu mi di Macky Sall jamono ji nag yëkkati na lépp état d'urgence bi ak couvre-feu bi jëlee nañu ko fi journal bi nee na Macky Sall maa ngi màjji màjji instant bi nag Sénégalais yi maanaam ñoo ngi dund dëgg-dëgg nag ak virus bi libération yéen a kaay ne ñun de mbir mi dañu see jaaxle virus ma ngi gën di law ci réewum Sénégal dee yi mel ni tulleeg màlle cas communautaire yi mel ni tulleeg màlle njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag jamono jooju la yëkkati lépp moom Macky Sall mel ni luy tont ci biir journal bi nee na en tout cas danañu jël suñu matukaay ba jàngoro ji du ñu rey waaye tamit jàngoro ji du rey suñu économie réew mi évidence yéen a kaay ne wax ji kay mooy échec total ci boppam la ñu gis ci mbir mi tribune yéen a kaay ne mbir mi su doon ab guerre la ñu ne Macky Sall wax na nañu delloo arme yi waaye nag nee na lu toll si juróomi téeméer ci ay médecin danañu leen recruter ak lu toll si junni ci ay agent professionnel de la santé Moustapha Cissé Lo ne xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex woppi coronavirus ci réewum Sénégal su dee ak lajjite am na si kenn jiituwu si Abdoulaye Diouf saar mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér gi yaram ci réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag mën na ñoo wax ne dafa gën a ubbil jàngoroy coronavirus ngir ñu nag maanaam di jaaba jonge ci réew mi yéen kaay gi de la témoin mu xëy di ñu xamal laan ñu couvre-feu bi tey jii bu 23 heures lay jeex waaye nag niki démb am na ñoo xam ne jot nañu ko anticiper ñu ak Grand benn tali jëppal bopp Colobane HLM waagu ñay quartier yii yëpp démb anticiper nañ ko maanaam bëri na sax ay points yoo xamante ni guddi gi boo fa doon dox da fa fekk ay policier waaye démb waa témoin nee nañ am na nag ay gox yu baree bari maanaam ci ay rond point gisoo fa benn takk der gars yi anticiper nañ mbir mi yéen a gi xëy di wax ne garaasu boo maraîcher amul kenn koo xamante ni nag jamono ji ma nga fay respecté li nga xam ne mooy geste barrière yi réew ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Wade muy rendre hommage Serigne Pape Malick mi nga xam ne moo génn génn àdduna fan yi ñu génn Abdoulaye Wade daat nay jaale umma islamique bi neena na àdduna bi yépp ñoo ñàkk rawatina diina ji Abdoulaye Wade di nettali jamono ji nga xamante ni moom ak Serigne Pape Malick ñoo nekk ndawoon ci kasu bu Rëbës Abdoulaye Wade nee na Serigne Pape Malick si ku am dignité la ko am jom la ku nangoo xeexal l'islam la ku bëgg jullit yi ak chrétien yi nekk benn la stade yéenekaay dikk ci Barcelone gi nga xamante ni jamono ji tension bu mag moo fa am ak i jafe-jafe boo xamante ni pëcc xoona loola ginnaaw bi FC Barcelone nulé ak Celta Vigo Madrid daal di koy raw tey ji nag FC Barcelone danañu daje ak Atlético Madrid te du nekk nag match bu yomb te Barcelone bu sa lajjee loolee nag dina firndeel Real Madrid mën nañoo wax ne dina jël championnat bi yéen a kaay gi de Stades xëy yóbbu ñu diwaanu Italie ca championnat bi nga xamante ni jamono ji maanaam rawante ba daat na tar lool diggante Juventus de Turin ak Lazio de Roma ndax nag Juve maa ngi ci 69 points Lazio 65 points te ñoom ñaar ñëpp am nañu match tey loolee nag duel à distance la